Euh, ñu dem ci li nga xam ne nag moom mooy euh, bu fekkee ni élément bi pare na euh, Abdou Top wala boog Modou Diouf bu fekkee ni Top jox na la ko tey moom daa xëyam soj xam naa régime moom bay boo ma wax leen ku fay dugg bay boo nga xam ko ña fa nekk ñëpp a soj ku nekk ngay forox foroxe bu dee élément bi pare na ñu dem yoof laayante dellu siwaat balaa ñoo ñëw ci lu ñu amal sa solo dañoo wax développement ak lañ ci wax lépp mais loolu lépp nag dans un climat li ngay def talkala bis bu jot ma wax leen ko réew bu xëyee ngoon gu jot nit ñay gaat nga ay yàlla teg fa ay rek xam nga dangay ngay yeew gis à la une le vendredi de tous les dangers pour le <laughs> mercredi de tous les dangers ñi da nga wax ni yow ke bu leen jàng toog leen xale yi bu leen dem tey ku la ko dem nag nga koy togg di ko togg ba nit ñëpp toog waaw bu dee vendredi bu jot ñëpp a toog ci ci seeni kër kuy produire ti man dama bokk ci yàgg na ñi gëmul jàmm nanu ñaan jàmm nanu ñaan jàmm yow jullit nga foo jullee ba mu ne assalaamu aleykum kon boobu nu mu tudd kon nag réew mi dafay am jàmmi jàkka am jàmmi pénc ma am jàmmi kër sëriñ ba am jàmmi am jàmmi kon bu ci yàlla moom gis nga jàmm ci conscience lay ne jàmmal du lu ñuy wax lu ñuy dunde la jàmm du lu ñuy nangam loo bëgg la kee bëgg ko te kenn rek mooy joxe jàmm ci kaw nga bëgg ko mooy yàlla bëggoo ko mu seetaan la gaa yi jàmm ji ñuy wax bis bu jot nanu ko dunde jàmm du jàmm benn catégorie de personne boo xamante ni dëggantaan bu ay échéance di bëgg jot di nangam di bëgg a jot ñu ne nanu ñaan jàmm ci fan ci réew mi réew mi dañ kaa war a ñaanal jàmm bis bu jot waaye gëm naa ni ñaanal jàmm sa réew mooy ngay liggéey ndax fukki nit ñooy 17 million de sénégalais ba ñoom rek ñoo mérité jàmm bu ñu ko amee ça va bu néew ma tàkkee ñu ni kon nanu ñaan jàmm anu leen 17 millions yi ci des loolu mooy kese kon jàmm ji nay jàmmi Sénégal yi Sénégal amul complexe diine déedéet li ñu doon wax islam confrérique tey jii réew mi yor ay réew yu doon taal ay nangam noo ko gën a soxla fii ñu toll pour sécuriser seeni société tey voilà mi ngi noonu xam naa ni euh, Abdou Top ak forox ja lañ ko laajoon monté wu ko lañ ko laajoon defu ko ci élément bi donte ni tamit dégg nañu ci élément wu kilifa gi euh, njëkkee na jàmm. Hmm. Euh, ba wax ne réew mi nekk la ñuy man li ma dégg ci wax mook la ñuy sabab ak di ko gaan nga daal loolu la leen yàlla di jox. Hmm. kon amaana lii Sénégal di dund muy nuroog ñàkk jàmm daal jàpp na ñoo koy sabab mais boo hmm. xoolee ci geneen wàll gët jàpp nañu Sénégal réew mu ko ëpp lu ñuy maanaam benn réew ci àddina bi ëpp ko lu ñuy tudd yàlla ci am réew naasiri xaq bil xaq jaa ngi jolli laa ilaha illallah ji mi ngay jolli nit ñaa ngi jaan jàmm noo déggee kàddu yi porte parole bi waaw xanaa ñu xoolaat sunu bopp ndax dañoo dañ dañoo delloo waat yeddaat ñu waxtaanaat ak ñun bàyyilawaat ñu xel sunum réew ndax bu fekkee ne réew moo xamante ni mu ëpp lu ñuy tudd yàlla mu ëpp lu ñuy ñaan mm-hmm. te mënuñoo buuse met mm. xol yi dëppoowul soxor gi tey la gën a bari mm. yàqalante gi tey la gën a bari jàpp nit ñi di tëj tey la gën a bari rayante bi tey la gën a bari dóor nit ñi ay garanaat tey la gën a bari sàcc beeg rendi beeg tey la gën a bari te ñoo ëpp lu ñuy ñaan yàlla est ce que kon yàlla mi ñuy dégg. Ah. loolu dañ ko si jàng est ce que yàlla connexion. waaw wala yàlla est ce que jéppiwuñu ndax réew mi moom day na waar. beneen bi it jàmm wax na ko nee na jàmm kenn yoru ko ku yàlla. Mm-hmm. muy lu wér it nee na jàmm it li koy indi mooy liggéey. su fekkee ne jàmm nag liggéey koy indi léegi dañuy delluwaat kon jàmm ji si président Macky Sall ni moo ko yore ndax moom moo tax nit ñi mënuñoo liggéey. Mm-hmm. ku taxawal ab société ñu teg la ay sart nga tëj société ba. Mm-hmm. ku taxawal société di góor góorgóorlu ñu tëj la ñetti fan ak bis bu dellu si. waaw alamaan la. ku tegub société. Mm-hmm. am gisinu wuute gisinam ñu teg la ay kii yoo xam ni mën na faa mën na faa joxe nax saay. loo bëgg du sotti. Mhm. lépp ñu lay gàllankoor te boo doon doonee tubaab jóge fee boo ñëwee ñu taxawalal la ay ay kii. Eh, ODCAV bi fu ñu fu ñu ko bëgg a taaj wet ga gën a baax ñu jox ko tubaab yi jox ko wet ga sa nga xamante ni boo dëppee la. waaw loolu lépp kon dañ koy delloo si président Macky Sall moo yore jàmm ji. Mhm. beneen bi it ñu ni jàmm ji maam ku fi bëgg kii taalibe yi dinañ ko régler ak yow. waaw taalibe yi si loolu lañ nekk nii ñu ngi regle dëkk bi. taalibe yi waaw si régler dëkk bi lañ. nekk tool bi waaw mais taalibe warut a nag Assane. déedéet man su ma doon jiitum réew dem toog ci kalamu kilifa mu ni dëkk bu naree réglé ku fi bëgg kii taalibe yi daañu ko jëflanteeg yow. Mm-hmm. ah. waaw taalibe si réew mi réew mi njiitu réew mi dafa jël ñu koy réglé de. ay taalibe waruñu ko réglé. waaw li bu fekkee ni koy réglé taalibe yi bëggee wuñ ko noonu. waaw mais a réglé civil mënut a yar civil. <laughs> ma ne taalibe yi daal dëkk bi lañ toll. non non mënuñu moom ñun ñi ngi réglé dëkk bi si ñu ko mën a réglé. la indi ci am réew. taalibe du taalibe mm. du yar moroomu taalibeem mm. waaw Mm-hmm. waxuñu la te waxuma foofu demal. yow fooy waxee. Mm-hmm. dama ne dëkk bi. nee nañu. Mm-hmm. bu fekkee ni maanaam nar nañ koo kii taalibe yi dinañ ko jëflante ñoom man la taalibe yi ñu ngi si nii chaque jour ñu ngi si mbedd mi garanaar yaa ngi kii pour ñu régler dëkk bi. dëkk bi ah. moom dana réglé wu. Ah, ah, kon waxin la. waaw maa ngi lay doog a dégg. jëre jëf Diop. <laughs> ay misere <laughs> jërëjëf am na ku ma ko wax keroog nee na ma alal caay caay gi bu amee <laughs> jërëjëf alaaji waaw. maa ngi la joxe du nuyoo benn waay benn euh, réalisateur bu nekk ci série Karma la xaw ma mooy série yu bees yu xew yi. Mhm. démb laa dajeeg moom fii nee na daf ñuy suivre. alaaji ñu ngi lay nuyu. Euh, kobar la la sant jël naa numéro am. Mhm. noo gisee euh, porte parole bi. waaw déglu nañ ko macha allah wax na ci lu jëm ci wàllu jàmm jàmm nag. dafa am ay gis-gis yu wuute yoo xam ni nit ñi am nañ ko ci li nga xam ni mooy jàmm waaw xam nga pareen saay mën nañoo nekk ci benn dëkk man ak yow yow nga ne ci jàmm man newuma ci jàmm te ñoo bokk même dëkk bokk même dëkk bi nga nekk ci jàmm ju neex lool man nag ma nekkul ma ñàkk nekk ci jàmm léegi nag bu fekkee ne yow gisoo ni man mii kat newuma ci jàmm ba nga mën maa waxal jàpp ni yow jàmm ji nga ne ñoo ñëpp a ngi ci loolu day def day doon euh, njuumte boo xam ni pareen saay mën na mën na am parce que ku ci ne ak ni nga xam ni noonu ngay euh, jëlee rek li nga xam ni moom mooy moom mooy jàmm ñaareel bi euh, xam nga jàmm ji jàpp naa ni kilifa diine yi fi mu toll nii dafa am loo xam ni mhm. Euh, politiciens yi ñu ngi koy bëgg a réussir te loolu ñoom waruñu ko nangu. mooy lan. maanaam dafa mel ni dañ leen a bëgg a wax ne leen euh, dafa am lu menacé yéen seen toogaay bi ngeen ne. Hmm. waaw dafa mel ni dañ leen a wax loolu. Hmm. tey puis dafa mel ni dañoo gëm. ni dafa am lu menacé ñoom seen li ñu ne. Hmm. te loolu dara menacé wu ko politicien bi moom bu mu dem ba jàq li mu yor moom. di bëgg rot mu ne leen bu lii ma yor jotee seen. lii ngeen yor ah, day ah, rot. dégg naa la maanaam daal fexe leen ba mu rot. waaw fexe leen ba li ma yor bu mu rot que li ma yor. ak lii ngeen yor ñu ànd. <laughs> bu buy rot ngeen di rot bu kii bu ñu bu may rot ngeen di rot <laughs> ñoom dafa mel ni actuellement dañu gëm ah, loolu. te loolu. <laughs> loolu loolu waruñu waruñu. bu may gëm loolu. bu ko ñeneen ñi faral man de woon bu may daanu ngay daan du ma nangu daan. bu may daanu ngay daan léegi dafa mel ni ñoom foofu lañ toogee <laughs> waa ji dana leen man su may daanu rek yéen ngeen di daan. Ah, léegi nag boo gisee discours yi nga xam ne moom la ñuy discours di acharné wu ah ñoom parrainage da ngay dem sax ba ci àgg bu ñu demee ba président di wax naan duñu ñu nangu beneen diine yow nga ñëw ci kilifa diine ñoom dañoo gis beneen diine ah ñoom li seeni maam jàngale woon dongo vraiment la ñu wax ci pénc bi. Mm-hmm. am déet. wallaay wallaay donc il faut que ñoom ñu delloosiwaat daal di xam ni ñoom ak kii bokkuñu. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. parce que xale yi ngay gis yépp ay taalibe yu bokk ci ay këri diine lañ. yaa ngi dégg. tey jii buleen leen ki ngeen ki ñuy joxoñ woo woon ci leneen lu dul liggéey réew mi. Mm. duñ ko wuyu. dëgg la. wala mu wax leen ne leen seen sëriñ yii bàyyi leen ñu ba ko comprendre donc xale yi ñoom séparé nañ mbir yi mhm. nañ ànd ak dal sëriñ yi nañ ànd ak dal te xam ni seen taalibe yi mhm. xam nañ yëf yi yow nañ waa jii nag ne leen nag man ak yéen a bokki mbir mhm. nañ xam ni bokkuñoo ak waa ji mbir déedéet waa mbiram mi ngi tàmbali 2012 waaw ki tàmbali 2012 yow say mbir ñaata at te li ñuy célébrer ñaataat lañ ko célébrer yàgg na ay ñaataat ay téeméeri at loolu day caaxaan waaw kii ay fukki at du caaxaan mm-hmm. yow borom fukki at ak ñaar bu la gëmee la woon ne la su may rot ngay rot <laughs> boo ko gëmee nag kon man damay xaw a jaaxle ko yaa ngi dégg. waaw laaj wax dëgg de bu may daanu ngay daanu. ah non mais mais mais loolu waruloo ko gëm yow yaa ngi feete nga ne sama lii may feete ma koy màggal tey def na téeméeri at ak dàngam. yow boroom koo xam ne moom nee na moom moom lii mu hmm. nekk ki ñëw. 12 ans fukki at ak ñaar matagul sax. Hmm. mu ne la waaye nag sunu lii benn la de. Hmm. nga ne ah, benn la. mu ne ñuy xeex man lay xeex waaye yéen lay xeex. man lay xeex waaye du man. yéen ñii lay xeex. nga bëgg loolu. bu may daanu muy daan ba noppi nag moo tax discours yi ngay gis yëpp fi mu jëm. lii ñuy wax nii yëpp. ñu réew mi fitna man daal jàpp naa ni. koo xam ne taxawoon na wër na àddina bi yëpp. ne ñaar yii du boo ñetteelu mandat mënatu la am bëgg am ñetteelu mandat kooku lañ war a wax ne ko dellul ca la nga waxoon mm-hmm. parce que lii kat mooy li nga wax discours yëpp yi sëriñ yi def boobu loolu mooy discours bi nga xamante ne bi moom mooy discours bi war mm-hmm. mooy que ni yow sëñ bi lii wax nga ko bind nga ko mm-hmm. dellul ca la nga xam ni moom nga xoon loolu bu ñu ci dellu woon rek lii yëpp problème dootu dam ànd dem ba ànd toog nag waaw <laughs> donc maanaam te bañ a nekk ci ay diggante ay ak jàmm ak fitna non non non ay que bu fitna loolu moo fi mën a yee fitna ci réew mi lan moo ko mën a yee mooy li ñuy wax naan troisième mandat te troisième mandat ki ko wax bind na ko ne mënatu la ne say ministre répéteel ñu ko ñetti yoon ne taxawal ma répété wax leen ko benn yoon doyut mais ñetti yoon laa leen koy wax waaw limité de moom mooy yamale moom limité kii ne amul may abal leen ma ma yeggale jumaa jeeg wala ma def lii bun joon yooyu yëpp ñu wax ko waaye quand nag bu fekkente ni bi nag ñi ngi déglu kilifa yi tamit ñoom it ñuy wax nañ ñu waxal ci lii. d'accord nga xam ni moom moo bu ñuy wax lu war a yee fitna lii mooy li nga xam ne moo fi nar a yee fitna. d'accord léegi nag bu fekkee ne bi yow kooku dafa ñëw ba ci yow di orienté mbir mi naan la beneen diine duñu ko nangu. ngay kontaan nga naan waaw mel ni beneen diine dafay am ban diine fi am. beneen diine amu fi quand